yéen bokki àdduna cheikh yéen bokki Sénégal yéen bokki àdduna cheikh Mouhamed Ibrahim di borom xam-xam bu mag bu kenn dul naa taple ci wàllu ñaan seet maanaam asraar ak wàllu fajum cosaan képp koo xam ne da nga bëgg a tàggalikook cigarette wala sangara ku rab jàpp wala ku mënta am doom wala ku néew kàttan ci wàllu sëy wàllu gàllaaj ngir aar sa yaram mbirum samp nit wala ju kër wala mu jox la daraja ju mat sëkk ak bayre seetil Cheikh Mouhamed Ibrahim loolu mbokk yi moo ma ci doy fii ci biir réew mi mu ngi nekk ci noor Foire téléphone am 77 187 61 30. xëy suba tege leen ñaari defet mu metti woon ci moom trop mu jël ko nga xamante ne ñu bari jàpp nañ ne sax nekkul woon adversaire waaye seetaan ngeen na nga xamante ne noonu la combat ba mujjee dóor mu daanu la def comme ni ma ko wax rek def na nam daan def. dañ koy féliciter di encourager adversaire am bu baax a baax. déclenchement am loolu la andi nuyu ko bàyyi ko mu nuyu mbokki internet yëpp bu ko defee ñu waxtaane ko ñii ne nañ 4 kaw la am ñii ne 5 dana ko leeral tey ñu ngi lay nuyu bu baax. dégg nga bàyyi noonu. waaw onze billahi mina seytaan rajim bisimilahi rahmaani rahim ginnaaw ba nu sante yàlla di julli ci yonent bi di gërëm suñu ñaari waajur di santaat waa parcelle bu baax a baax di sant sama xarit yi nga xamante ne ñoom ngeen fekk su ma amee combat du ñu lekk du ñu naan fekk dafa mbër amul ndam am jàmm dafa mbër su amee defet lu ne la ñuy dégg ñooñu man ñoo tax may sonn tey combat bi nga ko jëlee coow li bëri woon na trop ñu ne ma sax nga jógee ci coow dellu ci coow man leen tey dama nekk mbër moo xam ne dama objectif sama objectif si làmb mooy egg fi champion yi yegg te tey loolu noonu li koy maye mooy gëm sa bopp bañ a ragal yoon wi ay da ngay toog defaru ba ci kanam man leen yoon bi njarut a njarut a ragal boo gëmee li ngay def dangay ñeme romb rek am na loo manqué woon beneen bis topp day yokk man noonu laa ko gëmee moo tax ma gëm ni am na leneen sax lu war a ñëw. moo tax dama gëm ni yoon bi foog ñu ñeme ko. incha allah dafa mel na ni wax nga nga ne bii passé dafa am ñu la doon wër ci stade bi ñu ne am nga loo manqué tey ñu gis la nga bàyyi sa bopp ak nit ñi Tapha bi nga ñàkkee donte wax nga ko léegi bariwul ñu fi ñëw mais tey nga ñàkk ñëpp dal sa kaw ne am na lu la manqué sa biir xol lan nga mottali tey ba tax mu demee nii. waaw sant yàlla rek parce que tey nit ñi boo ñàkkee mu metti leen ça veut dire am na foo leen toll. bëgg nit mooy waral mu ñàkk nga yëg ko tey bu doon bëggoo ko bu ñàkkee doo ko yëg mais tey ñoom si boppam am si ñu si jug xam ne ñun war nañ mën a apporter dara Tapha Mbeur ñu jug def ko xam nga muy ñi nga xam te ne man ñi ma bëgg dëgg seen doole am na fu mu doon tollu man man ma ma dara mais tey damay gën a lancer waat appel rek di wax man xale laa te daa am fu mu bëgg a yegg si làmb lépp lu ma def dama koy xeeb parce que li ma bëgg moo ëpp di wax ñu gën ma dooleel gën ma jàppale di gërëm sama xarit da baax tey. dem nañ ba benn instant non no non no non parce que xam la moo tax. maam day tar des fois. tey dem nañ ba nar a cóolu oto bu ñu yóbbu instant te parcelle am na si ñoo xam ne ñu ngi fi war a mën a ñëw jàppale Tapha Mbeur Tapha Mbeur war a am combat bari war waru ko waru waru ko namm daal da baax dafa jógee ñëw jël oto travail am yóbbu ma instant di ko ñaanal yàlla na ko yàlla fay di gërëm sama gaay nag parce que xam la moo tax làmb dafa metti mm. ñoom Tafa Faye ñoom Moualvin mii nii xam nga ñoom Père Galas say watu xam nga maas bas ñun ñëpp da ngeen ñu dundal dama dama nga ñëwoon sa diggante ak sa adversaire combat bi mu taxawee ñaata séance nga doon def ba ba ba semaine combat bi. waaw combat bi parce que tey dama si jógee si làmb ñàkkoon ko. mu métti trop sama gars yi sax am na ñoom ñu bëri gëj nañ toog. wax toog nii ay jotaay nii suñu gisantee rek benn dix minutes la ma dawaat dama yeew fajar entraînement bëccëg ma dem saal léegi mooy ma dara. di ma yee fajar di ma yóbbu si dini di ma yóbbu saal bëccëg ngoon écrit bi ñoom sama gaay yi contact contact yi metti billaay damaa entraînement ba gasawaat na ma ne ba waroon noppalu tey loolu noonu tey dafa feeñ si géew bi bi ma demee sonn ma fana damaa sonn entraînement damaa entraînement entraînement ba nu mu mun dara fajar su ma ñëwee dallu lekk ba suur bëccëg ma demaat saal tërën su ma ñëwee ngoon 5 heures ma demaat contact des fois Pambay dafa may xool na ma yow maa nga fraîcheur de ban heure nga jógee tërën bëccëg ma ne ko tey de saal maa ngi fa jógee presque deux heures trois heures mu ne ma suba dallul wala boo boo bu heure boobu jotatee bul dem saal bul bul teg sa bopp coono yu métti coach Pambay professionnel di ko ñaanal coach gii sama papa di ma woo tout le temps nooy entraîner nooy def ma ne ko coach lii laay mu ne ma déedéet del wàññi ma ne ko coach daa am ñu may xaar dañ bëgg ma nekk champion man su ma toogee entraîner ma sax day mel ni comme si man maa ngi nekk si lu ma warul moo tax combat bi li ma si daj métti na trop ma demee si géew bi góob ma woon sax dina métti waat si man. Hmm. waaw parce que tey bu bu méttee fële rek warul mun a métti si géew bi. Hmm. léegi nan nga bëree. waaw arbitre dafa sifflé man ma xam ni kii tôt taar du taxaw xeexa man ma ñëw ñemeloo ko sama bopp ma ñemeloo ko sama bopp arbitre sifflé ma léew toog moom mu sànni benn ku ma arrière arrière ba si saako bi génn mu yëkkati public am ma xamal ko ni kii di la arrière ragalu la de moo la gën a ñeme dee. ma ñëwaat taxaw léewtoo ak moom mu sànni ñaari ko mais gëmloo nañ man tôt ou tard booy yëpp sa tànk yi lañ jëm si. ma gën ko jege gëmloo nañ la ni sa tànk la jëm wala booy yëpp que nee nga booy yëpp sa tànk yi lañ jëm si. booy bu ma siy bëreel du dëggal boppam xeex man xoolal sama carrière booy yi dëggal seen bopp xeex ak man yëpp loolu du lu ma wax quoi lu nit ñi teg seen bët la booy dëggal seen bopp xeex ak man yëpp li ñu si jëlee neexul. làmb yi ma ñàkk ñëpp tamit nag dañuy donc dañuy mel ni lu dëggal seen bopp daw dem ronu. Mm-hmm. yooru waaw léegi tey ma ñëw mu ñeme ma doxaat sama kaw sànni ñaari coup. ma ma jege dama génn sa lan moo tax boobu yëpp stratégie la parce que nee nañ ma booy bi day ñëw sa kaw. dañ ma gëm loo loolu dañ ma mat ci tôt ou tard sa tànk bi la ñëw ñemeloo ko sa bopp. bu arbitre sifflé même boo jéemee ba jub ko melal ni ku génn saako yi mm-hmm. dina yaakaar ni yow mii tey da ngaa ñëw pour da nga ko ragal. mu arrière génn saako yi ñëwaat li ma ñëwaatee léewatoo ak moom gën ko jege mu sànni ku waat ku troisième bi daana xaas rek daw ñëw ma tëru ko. jàpp ci ngembali mu yaakaar foofu la ma gis téere bi ci biceps bi ma rocc loxo bi téye ci téere boobu rocc sama loxo droite parce que Ousa 2 daf ma woo ne man Tapha Mbeur booy yi booy ko def dañuy daw song ji li ma lay ñaan mooy bul xeexati gauche droite bul corps à corps bàyyil ba jàpp génnee sa loxo dóor am nga force de boo ko defee buntu feeñ. Hmm. te bi ma roccee Euh, euh, téere bi ci loxo bi benn coup laa ko dóor mu wàcc. te si géew bi wax na ma lu ne saaga na ma yooyu noonu mais. su ma fa nekkoon di dund moom yooyu sax day am lu mu damay ñeme. ma ne kii nu ma koy def si géew bi la. làmb la lamb mun man bañu ma yooyu. ñun ñoo leen gën a sakk fop ñoo leen gën a ënd ñun dañoo xasaw ñun. <laughs> waaw ginnaaw bi loolu weesoo Tafa ñu ne sa combat doon jàll communiqué bi da doon bari mais combat bi da ngaa def tekk dafa dara kenn gisu la par rapport ak Ada Fass paroles yi ñoo jeex ci xel mi wala amatoo loo créé wala la noppi loo tegtalu làmb la. non bi ma génnee as lëf laa ko may. dama ne ko birti birti min ketti man kettungal yow kettungal kër ga dongo dongo man dongo dongo man xaalu ko ku yooyu ba yooyu yàqu bukki yée nga yàqu yoo tax di nga gis ku mën yooyu bañ koy jaawale kuy seeñu may leen ma daaneelal ko jeexul dafa gudd avant dañ leen sa dañ daan gis communiqué yu neex man ay asbaab laa yor ay asbaab laa ak ay baabul maftoox mais boobu maa bëgguloon maa ngi moom ñu egg foofu ma jël lépp teg ne parce que parcelle damay génn sax ñu naan ma mbër xamuñu si man ay defet dama ñëw si làmb tegle sept combats sept victoire am si quatre kaw am ñaari defet rek ñëpp mere ma parce que xam la dañ ma bëgg dañ ne ma mbër du yoon yow sa niveau si làmb am na foo war a teg sa bët mere bi du loo xam dañ ma bañ de dañ maa bëgg bëgguñu gis defet ma ne tey lan laay nekk fii di open press di di mel ni ku kontaan lépp laa teg na le maa jël sama décision ne ma lu may def li war si laam naa jaay bés bi dinaa def mais yu bëri naa ko ba def li ma war a def ba pare wan gars yi man dama bokk si làmb dama am cër si làmb te xale laa. waaw ku bu ma ko sax moom moo mënoon saaga. loolu yóbbante la gis nañu ko dama ko doon yóbbante moom naka du dégg. yéy bi yéy bi ci Ada Fass xanaa mujjee. non maanaam tey mooy li ma la wax rek gis nga Tapha Mbeur bu amee taxaw dëgg moom li mu gëm mooy góor du yërëm góor ku jekku sa morom rek yéey moom nee na day rocc suma put moom putam bi bi may génn ci stade bi laa ko romb maa ko rocc. waaw mais est-ce que est-ce que amoon yéen ñaar. jàppante bëre parce que sama waa écrit duñ ma bàyyi ma fenn Pambay barki alxuraan may contact lu 5 heures ba 7 heures. buñ contacté ba déggee mu ne mbëri arrêté leen dafa mbër sampal mbër yëpp laay bëreel damaa contact bay bëgg dee ñoom aada booy bawal ñoo di ma jàppale ñoom ubbali Ibou Ndiaye mbake fay jegaan di ko ñaanal mbaam bi mu jëm samedi moom Mbégue junior yàlla na ko yàlla may ndam ay ndaanaan ay Georges Poit ñoom tamit tur tur lutte simple bi buñ fa demee lañ fa teg dinañ ko jël di ma jàppale contact di ma teg lu métti ne ma yow ñun bu la neexee sax bul xeex jàppal booy bi moo tax bi ma jàppee gis booy bi teg sañ-sañ man sama làmb yi ma door mu daan yëpp indiwu ko de damay ñëw bëgg a jàppante mais des fois daf si am booy yuy teg bandi te affaire bi du yooyu am na ñu la gën a sakk te ñoom duñ dundee noonu man ñoo diwu ma bandi ñun dañ lay gën a undu ba pare gën la kileem ma ñëw jàpp ko muy jéem a dóor ma rocc ko wan ko ni fii la buujoo dama rocci sama loxo benn laa ko rombal ci côté nopp bi ngelaw li moo ko daaneel. kon daloon lu mu def ko daloon lu mu yoon dina dal sama kaw de waaw yoon dina dal sama kaw parce que wóorul parce que xam rek man sama loxo arme balance la. Maodo. arme balance la lu ma ko foowee dañ may tëj. naa la kandang bi wuyul wuyul. am na solo léegi nga tey fan nga waaw làmb dama si am cër te fii du sama place si làmb soq na wàññi coow li maag moom làmb la. Eh, soq man soq na wàññi coow li maag soq mooy bés bi. waaye yow luy diis man xam ñan laay kontaagal ñoom Obali. Ada Boy Bawol. Jegaan George Poit ñu ne xale lañ de mais ci en face bi lañ dëkk. tànku neen la ñuy demee géej. nga dina samay làmb man ay fii du sama niveau dafa am fu ma teg sama bët man nag tooguma pour moom tooguma pour keneen képp koo xam te ne pare nga pour jël sama avance te muy sama adversaire potentiel na ñëw ñu jëflante. mais est-ce mën ngaa yëngal soog. waaye yow ku dugg mag mooy yëngal daxin. soq nag du daxin. waaye yow kooku di mbaxalu naar. mais Lamine Lamine question bi dama la koy jox nga dellool ma ko Tafa lu tax mu ba fi ñëpp bu doon tey dañ naan euh, jàngoro yi corona donte gaaw na waaye siti day sonal baate moom mu ne soq na bàyyi wax ji. Tafa waaw man bu ma lu yomb. sox bu fi nekkee mbër. ma nekk fi mbër. ma am ku ma fiy tegg wala moom wala keneen la mooy lan mooy sama cër si làmb moom day taxaw di dëkk ay mbër. Hmm. dëggam déet. waaw mu nga noonu. ñi muy dëkk du ñu ay adversaire am dafa am làmb yoo xam ne amateur yoo koy bëgg muy jaay àdduna muy promoteur yi bu ñu joxee fukki dërëm dañoo bëgg cent franc. te daa am adversaire yoo xamante ni dañoo war a mën a bëre man ak moom. lu mu jaay ma jënd ko loolu kese la. lu mu jaay ci géew lu mu jaay ma jënd ko du dara. ci géew lu mu jaay dañ ko jënd. nit la rek ñaari loxo la am ñaari tànk yàlla na nu yàlla may jàmm bu ñemee jël mu jël bu dul moom di keneen man ciblé wu ma de. yow yaa kan mooy sa adversaire potentiel. ma gis ni man ak moom. làmb njarndéem la. bu dul moom nag di keneen. keneen kan. kum doon baax na. na doon adversaire boo xam ni man ak moom àdduna dañ koy xaar. man sama boo xoolee sama yoon yëpp. saa bu ma duggee làmb coow lu bari. combat bu may bëreel coow lu bari. jox la Abou Ndiassé. waaye ban loolu. combat la. waaye dama ne la. combat la bëreewu ma. la daa am ñoom war a bëreeg ñoom. combat la combat bëreewu ma loolu. dafa ñu ngi wax Lamine a ngi wax rek. bi nga nee soq kenn tontuwul. mais Lamine na Abou Ndiassé public bi bëgg a tontu yow yaay bëree du public bi. déglu ma wala. xam nga ma wala man. man man maag mbër doo ko jël avant bii doo ko defar licence tey. sax combat mais daa am yu ñu war ak yu ñu war bëre loolu du xam ngeen. mais dër bi la dër ah, comme foofu nga génn kay dugaatal. ay karo yi la nga naan dër bi. ondu la ay sëñ bi déggoo ma xanaa. li ma la wax mooy combat bi bu dul loolu man xool ma leneen. mais Tafa soq rek ko samp nii Tafa xanaa daa am lu la bëgg boo xam te ni combat jànq la. combat bu metti la bëgg. waaw bëgguma lu bëgg.